dal ak jàmm ci leeral point net tey jii ñu ngi xëyee ci xëtam gu njëkk meurtre de Kiné Gaye coup de couteau Khassim Ba baptise son fils avec l'argent du ma naka rek daal mbiru ba Kiné Gueye googa muy dem si yàlla gi ñu daal di faat rek daal ca palaasam googa gi ñu daal di nemmeekoo rek daal ci lu toll ci 37 jam-jam rek daal paaka la ñu daal di nemmeeku ca yaram gala waaye nag ki nga xamante ne moom mooy Khassim Gueye def ni ni mel moom nag daal li mu daal di ngénte xaalis si crime dong la loolu daal la ñu daal di xamle ki nga xamante rek daal moom moo def jëf ju ñaaw jilee moom nag daal daa yi xamal mbir mi kat moo ko daal di def lu tax mu daal di ko def rek daal ndaxte ki nga xamante ne moom mooy soxnaam rek daal dafa daal di wasin waaye li nga xamante ne moom mooy ngénte ga rek cher lool ba noppi itamit soxna si di ko laaj xaalis gu mu amul kon nag daal ngir rek am xaalis gilee foog daal mu jël li nga xamante ne mooy 3 millions 500 yi nekkoon ci magasin Kiné googa loolu daal la xamal l'enquêteur yi le naka noonu rek daal ba tey a ay kàddoom mu ne rek daal moom mi sax daal gannaaw gi mu dal di ñëwee ñeenti yoon rek daal la paaka bi ci loxoom naka noona mu daal di def rek daal paaka bi ci ci suuf yërëm balaa rek moo dugg daal ca multi service googa waaye tamit muy xool moment opportun maanaam rek daal fi mu gën a jekkoo balaa rek daal moo daal moom mooy eh, nga xamante moom mooy Xasim eh, Ba moom mii sax daal bi muy préparé mariage am itamit nii la fi nga xamante rek daal moom foofu la doon liggéeyee mu ne dafa daal di réeral lu toll ci cinq millions ci suñu koppar ba tax na rek daal mu ne dañ koo daal di agressé te loolu dara amu ca ngir rek xaalis googa ba ki nga xamante ne moom la doon liggéeyal kooku dàq ko itamit licencié ko ndax détournement de deux millions francs CFA li nga xamante rek daal moom mooy euh, ngànnaay gi mu daal di jëfandikoo ak ni ni mel gannaaw bi ko ba noppi dafa euh, daal di nekk rek daal mu mel ni euh, ku jaaxle mel ni rek ku yëgul dara ci mbir ma te fekk yow moom moo rey ndaw sa ba noppi tamit li ñu daal di xamle mooy arme crime bi maanaam ni mu ko daal di reyee ci ay yéreem rek lañ ko daal di fekk muy daal di wax ne li si des rek daal jabaram la ko daal di jox ngir rek ngénte doomam gile waaye nag daal bu ñu sukkandikoo ci autopsie bile moom nag daal dañoo ne soxna si le ëmbul woon waaye tamit daal ñu daal di xamle moom milekat daal ay paaka yu bari lañ ko daal di jam waaye tamit ci digg doddam ak ci biir ak ni ni mel waaye tamit ñu gis ni itamit am na hémorragie interne ak externe loolu daal la autopsie bi wax bu ñu sukkandikoo daal ci yéenekaay gile ba tey rek daal ci xëtam mu njëkk ci leeral point net aar Sénégal met en garde le conseil constitutionnel d'éventuelles combines de Benno Bokk Yaakaar éliminées par et cetera nag rek daal aar Sénégal moom nag daal li mu daal di àddu muy rek daal muy yëgal ni conseil constitutionnel bi na moytu rek daal bokk ci combine Benno Bokk Yaakaar gi gannaaw gi ñu ko daal di éliminer ñu gën a bëri rek daal xamee nañ waaye tamit daal ñu ngi ko daal di xamle gannaaw ab conférence de presse bi ñu doon jàkkaarloog rek taskatu xibaar ya muy ci nga xamante ne moom moo jiite liste wa di Thierno Alassane Sall li ñu daal di xam ne rek daal mooy coalition ñaar yi le muy benn bokk yaakaar ak Yewwi kan bi bu ñu yaakaaree nekk daal ñoom ñoo gën ñeneen ñi juum nañ ba tax na rek daal ñoom ci seen bopp ñoom ñoo juum seen juum bopp kon nag nañ ko daal di assumer loolu lañ daal di wax si bu fekkee nag daal li nga xamante ne moom mooy loi maanaam rek yoon respecté wuñu ko lu waay xam rek bootee doomam kon nag daal bu fekkee rek daal par extraordinaire ñi nga xamante rek daal ñoo ñooy conseil constitutionnel gile bu fekkee décidé na rek fekk daal bàyyi lii mu jàll ak ah, kon nag ñu xam ne bu boobaa lu waay neex rek def ndax moom mu ne ñoom kat nekkuñu ci commune gile bu ñu sukkandikoo ci yéenekaay gile ah, ba tey rek daal ci xëtam ngu njëkk ci leeral point net le chauffeur transforme une mineure en objet sexuel après avoir menacé de divulguer ses images sur internet naka noonu rek daal ab ah, benn waay bi nga xamante ne rek daal ab chauffeur la moom daal moo daal di jël ab xale rek daal yàq ko woowee comme nu mu ko neexee ba noppi di ko daal di menacé di ko wax ne bu fekkee wax na rek daal li ñoom liñ daal di def dina jël photom yooya daal di ko sànni rek daal ci internet bi ñëpp gis ko naka noonu rek daal chambre criminelle du tribunal de la grande instance de Louga moo daal di condamné ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sow à deux ans de prison ferme moom nag daal ab chauffeur la comme profession waaye tamit liñ ko daal di tuuma rek dal moom moo daal di transformé ab ndaw bi nga xamante ne xamul dara daanaka foowee saa yu ko neexee ba noppi itamit di menacer di publier ay image maanaam rek daal ay mbir yu ñaaw yum ko daan def rek daal ci réseaux sociaux yooya naka noonu rek daal di ñu daal di informer rek daal ñuy daal di xam réponse gilee muy détournement de mineur viol pédophilie détention de chanvre indien en de consommation personnelle maanaam rek daal li ñu ko daal di jàppee muy rek daal muy pédophilie sàkkub ndaw ak yeneen yi nga xamante rek daal daf koy daal di jëfandikoo drogue ak ni ni mel naka noonu itamit ñuy daal di xamle loolu nag débat googa amoon na itamit ressortissant ndax xam nañ ni maanaam mbir mi mu ngi commencé depuis septembre naka noonu rek daal ñuy xam ne euh, famille euh, Cissé ña nag daal dañoo waxoon rek daal ne seen doom bu am 15 ans dafa daal di réer xamuñu fu ñu daal di nekk ñoom nag daal ab jaaxle samp ca ñoom ñu koy wër ba noppi itamit ñu xam ne gisuñu ci lañ demee ci gendarmerie daal di ko signalé ki nga xamante rek daal moom mooy A Cissé moom mi kat gisuñu ko waaye tamit gendarmerie gendarmerie xool ba noppi itamit ñoom it gisuñu waaye famille googa dundee yaakaar rek daal ah, ba tey di wax ne ki nga xamante ne mooy Assise dina ñëw ba noppi ànd ak ba bakkanam te dara du ko dal ñu dundee yaakaar googa waaye tamit daal eh, ñu toog rek ci lu toll ci quatre mois maanaam ñeenti weer rek daal la ñu daal di gis xale bi muy liggéey rek ci benn restaurant comme Mbindaan loolu nag daal mu ngi xewee en mars 2021 ñu daal di gis xale bi rek daal daal di ko wax gendarmerie gendarme mu ñëw rek daal jël xale bi yóbbu ko daal ca gynéco daal ñu daal di ko xool ñu xam ne xale bi la kat ñàkk na ndawam lu yàgg loolu daal la ñu daal di xamle naka noona itamit ñu daal di def ab rek daal ci Ousmane Sow mi nga xamante ne moom moo sàccoon xale bi la ba noppi tamit di ko jëf-jëf ju ñaaw jooja Ousmane nag daal daal di daw kenn gisu ko ba ci lu toll ci neuf mois ñu daal di ko gis rek daal daal di ko yóbbu ca gendarmerie Ngëm Saar fa lañ ko daal di yóbbu waaye nag ca baar ba moom nag mu ngi daal di xamle ne lu luñ ko tuumal li yëpp moom muy moo ko daal di def ba noppi tamit mu am image yi nga xamante ne yor na ko rek daal jëmale ko ci ndaw si bu fekkee ne waxoon na rek daal dana koy daal di publier lu jaaxaloon rek daal ñu bari ñi nga xamante ne rek daal moom mooy famille googa muy Asise mi moom nag daal dafa gën a firndir rek daal mbëggeelam ci Ousmane Mile ba noppi tamit nee na pare na sax daal pour doon soxnaam ba tey rek ci xëtam mu njëkk ci leeral point net opération de sécurisation mixte police gendarmerie 463 individus interpellés 93 véhicules et 156 motos immobilisées à Dakar naka noonu rek daal mbirub ngi réew mi ak i tamit rayin yu bëri yi opération gi nga xamante ne rek daal police lëkkaloo woon na ko ak gendarmerie ngi rek daal ñu xool i tamit kaaraange gi fan la daal di toll ci réew mi lee naka noonu rek ci li toll ci 463 individus maanaam ay nit rek daal dal di leen ne jàpp waaye tamit ci lu toll ci 93 oto yi nga xamante rek daal eh, téye nañ leen itamit ak li nga xamante ne moom mooy 156 moto yi nga xamante rek eh, yi nga xamante ne nemmeeku nañ ko naka noonu rek daal mën nañ cee lim ca Wokam eh, Papis ak ki nga xamante ne rek daal moom mooy Kiné Gueye ca Rudis ak yeneen cas yi nga xamante ne ràññee nañ ko ca loola naka noonu rek daal police ak gendarmerie lëkkaloo rek daal ngir def liggéey gu mucc muccaayib ngir rek def ab opération mix ci seen diggante ñoom ñaar ñii ñu lëkkaloo rek daal ci guddi samedi gile ba ci dimanche ngir rek daal ñu def seen kémtalaay kattan képp kuy samba boy wala ngay doxantu ni ni mel ñu daal di la teg loxo ba tax ne rek daal biñ ko daal di defee opération gile daal jur na ci lu toll ci 463 ay doomu aadama yi nga xamante ne teg nañ leen loxo ba noppi tamit ñu jàppale quantité drogue gu mucc ayib loolu daal la ñuy daal di xamle exceptionnel comme nuñ koy daal di woowee li nga xamante rek daal moom mooy kaaraange gi ñu daal di ko ñàkk bu baax ba noppi itamit ñoom ci seen bopp ñu xam loola ñu daal di wàcc rek daal ci capital ndakaaru gii ngir rek daal xool ruq-ruqaat yi nga xamante ne xam nañ ni kaaraange ñàkk na fa lool waaye tamit ñu démantelé ay yeneen bande naka noonu rek ñu jiite woon mbir mi muy le directeur général adjoint de la police ki nga xamante ne moom mooy Modou Mbacké Diagne ak directeur de la sécurité publique Ibrahima Diop ab le commandant la légion ouest de la gendarmerie nationale muy colonel Abdou Mbengue naka moom rek daal ñoom ñoo ànd naka nii rek ak yenn éléments yi ñu daal rek daal seetal maanaam nettoyé capital Sénégal yëpp naka noona gannaaw gi ñu daal xamle rek daal ni ni ñu daal jàpp ci lu toll ci pièces yi nga xamante rek daal recelé nañ ko waaye ci lu toll personnes rek daal ñu màndi lañ leen daal di waaye tamit ak ñi nga xamante rek rek daal dañu leen jàpp ñu daal di téye rek ab drogue ci ñoom wala ñu fekk leen ca naka noonu rek daal lañ daal di xamle bu ñu sukkandikoo ci euh, le soleil ñu ne rek daal même renseignement yooyu gannaaw rek daal gi ñu daal di wàccee ci ñaari bés yooyu muy samedi beeg dimanche gile démonté lañ rek daal ab bande bi nga xamante ne ñoom it tamit ci opération yooyu lañ doon yëngu waaye nag daal ñeenti personne rek daal lañ ci daal di jàpp ñi nga xamante ne euh, ñoom nag daal dañ doon agressé ak sàcc ni ni mel ci guddi yooya mu nekk rek daal ak communiqué gi nga xamante ne mu ngi ci leeral point net ci xëtam gu njëkk